mi ngi noonu premier mi ngi noonu premier incident premier incident juste à la sortie de Cité Keur Gorgui le véhicule bi nga vous le voyez le véhicule de la la BIP moom moo rentré moom moo rentré oto moo rentré oto bi convoi au président Ousmane Sonko le véhicule de la BIP moom moo rentré li nga xamante ni moom moo di oto Ousmane Sonko mi ngi noonu comme vous le voyez le véhicule waa BIP ñoom ñoo ñëw ñoom ñoo ñëw dugg directement dans le convoi forcé ko mi ngi ñoom ñoo rentré le véhicule du convoi du président Ousmane Sonko mi ngi noonu et le président Ousmane Sonko était descendu pour wax ak ñoom président mi ngi lu tax ñuy dugg ci convoi bi directement waaw mi ngi parfaitement nee na leen vous me laissez tranquille ma sinon si vous ne sortez pas du convoi je ne bouge pas c'est ça les propos du président Ousmane Sonko loolu la parce que oto bi day progresser waa biip ñëw dugg ci biir convoi bi bëgg a oto président président ba mbëkk oto bi ànd ak président président nee na président nee que président nee na tant que oto bi bougé wul génnul ci convoi wam moom il na bouge pa gis ngeen oto yi ni ñu dugantee gis ngeen oto yi ni ñu dugantee gis ngeen oto yi ni ñu dugantee gis ngeen oto yi ni ñu dugantee mi ngi noonu ils sont rentrés dans le convoi mi ngi noonu le véhicule seen véhicule a ngi nii ñoom ñoo ko chargé ñoom ñoo ko chargé C'est un blocage c'est un blocage qu'ils ont fait blocage bi moo tax président Ousmane Sonko mu tant que président tant que génnuñu convoi bi il ne bouge pas le président Ousmane Sonko l'a dit Abbas est en train l'honorable député Abbas Fall est en train de dire ces trois vérités on voit Abbas Fall le chef de la sécurité Wali Wali Bodian mi ngi noonu mi ngi noonu ça c'est de la provocation ils sont entrés délibérément dans le convoi yàq ñaari oto yu nekk ci convoi bi pour bloquer le président Ousmane Sonko qui je rappelle a demandé aux gens de venir ñu dem fële nga xamante ne moo di tribunal donc ils l'ont fait exprès kenn xamul lii lu mu doon kenn xamul lii li mu doon mais le président Ousmane Sonko li mu wax lu leer la dafa ne tant que li nga xamante ne moom moo di le véhicule ne bouge pas tant que ñu ngi jéem a dugg dans son convoi il n'ira pas fii lay bouger et on n'accepte pas nee nañ ay voiture de nervi la le véhicule blanc c'est pas un véhicule de la BIP mi ngi noonu c'est un véhicule mi ngi noonu mi noonu mi ngi noonu c'est un véhicule sans immatriculation je le précise ce véhicule blanc c'est un véhicule sans immatriculation un véhicule sans immatriculation je le répète ñoom ñoo bëgg a dugg ci biir convoi bi la sécurité est aux aguets et le président Ousmane Sonko li mu wax c'est très clair comment peut-on accepter que véhicule bu bokkul ci dispositif di ci dugg mais c'est c'est très claire la chose est très claire tant que ñoom ay corps étrangers ñi ngi ci convoi bi président nee na du dem on va vers une situation boo xamante ne dara jaru ko parce que tout était bien parti xëy ndekki jël sa oto dem di wuyu tribunal ñu lay galgal et c'est pas normal mais voici le Sénégal voici le Sénégal mi noonu le GIGN c'est plutôt le GIGN mi ngi noonu mi ngi noonu on reprend les choses président nee na président nee na tant que oto kenn dugul ci convoi bi mi ngi noonu. mi wax lu leer la. comme vous le voyez mi ngi noonu président nee na mooy joxe signal kon nañu taxaw tant que oto yi tant que oto corps étranger yi bokkul ci convoi am ñu ngi ci biir convoi am il ne bouge pas c'est ça loolu la président wax waaw et on se demande pourquoi la force publique di def yenn manœuvre yi c'est une question il faut qu'on se la pose président Ousmane Sonko mi ngi noonu waroon dem wu ji au tribunal waroon dem wu ji au tribunal xëy joxe consigne la sécurité s'est mise en branle ñu dem mi noonu mais président nee na bépp corps étranger bu dugg ci convoi am immédiatement le convoi va s'arrêter mi on est ay oto yoo xamante ne kenn xamul lu ñu doon intercepter le convoi du président Ousmane Sonko vous le vivez ici en direct en direct et en live mi ngi noonu ñu génnee rond-point cité Keur Gorgui ces deux véhicules sont venus s'encastrer littéralement ci biir convoi bi ba créer ay dommages ci yenn oto yi juste oto bi nekk ci ginnaaw président Ousmane Sonko pour dugg alors que ñëpp xam nañ ni c'est la sécurité ñoom ñoo ci nekk c'est-à-dire mi noonu le Sénégal est là et je le répète c'est un véhicule sans immatriculation mi noonu le convoi reprend le convoi reprend mi noonu kenn du dugg ci convoi bi parce que itam lii wóorul kenn xamul kan la doon après ñuy ñëw di dugg ci biir convoi bi la sécurité ne la permet pas mi ngi noonu askan baa ngi génn askan baa ngi génn di tàccu président Ousmane Sonko l'homme du peuple il marche dignement et fièrement vers ce tribunal où le peuple l'attend le président Ousmane Sonko jàmm rek lay am ndax askan bi la àndal moom moo ko waxoon ginnaaw yàlla dénk naa sama bopp askan bi le convoi reprend le convoi reprend mais quand même il faut documenter lépp li nga xamante ni ay bavure la c'est anormal c'est anormal parce que nit ki dafa xëy war a dem tribunal xëy war a dem tribunal lancer un message ñu war a dem tribunal génn këram war a dem tribunal ñu indiwaat ay galgal pour tardel ko pour créer ay problèmes yoo xamante ne mën naa ñàkk c'est inacceptable c'est ce qu'est en train de dire l'honorable député Abbas Fall l'élu du peuple président mi ngi nii on est là en mois de février mars a ngi ñëw 2021 c'était les mêmes circonstances qui ont produit les mêmes conséquences président Ousmane Sonko oto bi taxawaat na convoi bi taxawaat na parce que il faut que ñu bàyyi le convoi mu jàll il faut que ñu bàyyi le convoi mu jàll la liberté de circuler c'est quelque chose boo xamante ne ñëpp ci d'accord président mi ngi génn ak sécurité am baarewul tali sonalul kenn di progresser pourquoi vouloir def yenn yi ci ay otoom c'est de la provocation ce n'est pas de la sécurité je suis vraiment désolé mais voici l'image du Sénégal en ce 16 février 2023 le Sénégal est là mi noonu parce que lii tey buñ ko defee day tax ne tous les militants vont sortir et ils vont vouloir rejoindre le convoi pour sécuriser le président alors que lii mënoon na ñàkk mënoon nañ ko bàyyi mu progresser dem tranquillement ca tribunal ba comme ni mu ko décidé mi ngi noonu mi ngi noonu même pas sorti de cité Keur Gorgui et le premier incident lii kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon on se demande demande lan la ñu bëgg dañoo bëgg mu dem tribunal wala dañoo bëgg leneen et ça se passe devant les caméras du monde entier le président Ousmane Sonko qui reprend son convoi jeunes yaa ngi noonu Père Djibi Gueye Ndiaye honorable Abbas Fall Citizen Lee gaa yaa ngi noonu on avance on avance la sécurité est en de frayer le chemin destination ñi ngi jëm fi nga xamante ni moo di cité ñoo ngi génn dans la tanière du lion cité Kër Góor gi jëm tribunal donc normalement normalement tey dara warut mën a am ku génn war a dem tribunal war a dem wuyu ji accompagné de sa sécurité et de ses avocats rien de plus normal pour le chef de l'opposition du Sénégal l'espoir de tout un peuple sénégalais donc jamono yi ñoo ngi progresser reprendre nañ dugg nañ Mermoz ñoo ngi demaat fi nga xamante ne mooy place bi nga xamante ne foofu la ñu war a génnee président Ousmane Sonko oto yaa ngi progressé waat on reprend et pourtant tout était bien parti yaay booy ñëpp a ngi tàccu ñu ngi koy tàccu président Ousmane Sonko ku nekk ci dëgg ñu jàppale la ku nekk ci dëgg askan bi génn teertu la wax la ni nu sommes avec toi jàmm rek ngay am mi ngi noonu askan baa ngi noonu jàmm rek lay am président Ousmane Sonko lii ku mu neexu ku mu naqari sa problème la ku mu naqari sa la in God we trust seul l'agenda de Dieu compte yàlla yor agenda moo ko def ci xolu jaam ñi président Ousmane Sonko le lion est sorti de sa tanière destination tribunal de Dakar ñoo ngi avancé avec le président Ousmane Sonko la sécurité demande à ce qu'on accélère un peu c'est un peu difficile devant parce que li ñu créé ci ginnaaw moom moo indi attroupement bi yëpp mi ngi noonu nee na ngir yàlla génn bi nga bàyyi doomu jaamur bi lii dafa ñaaw nit ñi génnati nañ seen kaw terrasse yi président Ousmane Sonko moo fi jaarati destination tribunal bu Dakar ci lii la ñuy taxaw lii la ñuy taxaw président Ousmane Sonko ovationné par de simples citoyens les citoyens du Sénégal ceux qui le portent dans dans leur cœur président ngi noonu parce que lii itam kenn xamul lu mu doon nit bu xëy war a dem tribunal di dox doxam tranquillement nga jël say oto encastré wu littéralement dugg ci convoi bi ba yàq ay oto te yow bokkoo ci du yoon nañu waxante dëgg mais fii la Sénégal tollu fii la Sénégal tollu mi ngi noonu je vous donne l'image les images ci kanam nit ñaa ngi ci kaw terrasse yi di xaar yéen a ngi dégg Sonko Sonko Sonko Sonko le président du peuple sénégalais oto yaa ngi progressé ci kanam on accélère un peu on accélère un peu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko destination le palais du tribunal de Dakar mi ngi noonu borom oto yaa ngi klaxonné élèves yi nañ président Ousmane Sonko mooy ñëw exceptionnel Sonko Sonko Ces étudiants sont conscients de leur avenir. Regardez ces images. Regardez ces images. Pour une première dans l'histoire du Sénégal, quelqu'un qui est convoqué au tribunal, accueilli, soutenu, ovationné par le peuple sénégalais ku nekk ci dëgg askan bi fekk ci la ci dëgg président Ousmane Sonko ci dëgg la nekk ñoo ngi noonu on accélère un peu ngi daw on accélère un peu destination tribunal bu Dakar comme l'a dit hier le président Ousmane Sonko moo di loo xamante ne ça sera le procès le procès du Prodac mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ñoo ngi progressé war a génn nga xamante ne moo di Estelle Mermoz Estelle Mermoz bi nga xamante ne yàgg naa ko wax depuis 2021 dañ ko war a rebaptiser la place du président Ousmane Sonko 2021 le 3 mars foofu la lépp xewee ñëpp Sénégal bi gis njàmbaarte ki nga xamante ne du dellu ginnaaw askan bee ko tax a jóg président Ousmane Sonko foofu la ñuy génnee Estelle Mermoz ñu progressé jëm tribunal bu Dakar président Ousmane Sonko où l'attend certainement de milliers de sénégalais nit ñaa ngi génn parce que le président est là nonobstant li nga xamante ni moo di le dispositif sécuritaire impressionnant Dakar est en état de siège mais le président Ousmane Sonko mi ngi dox di circuler mi ngi jëm fi nga xamante ni moo di tribunal quand tout se passe dans les règles de l'art le président Ousmane Sonko respecte évidemment cette loi du Sénégal waaye lépp na jaar ci yoon dispositif sécuritaire baa ngi noonu ay unité d'élite yu ñu génnee gendarmerie d'intervention waaye min nañ li saa yu président di génn nii lay demee mi ngi noonu d'accord na place du 3 mars mi ngi nii place baa ngi nii fii la lépp xewee fii la président génn boot loxo yi de manière sereine askan bi di ko seetaan ñuy témoigner njàmbaarteem mi ngi noonu la place du 3 mars la place du président Ousmane Sonko mi ngi noonu le même dispositif mi ngi nii les mêmes causes produisent les mêmes conséquences moo tax it ñoo ngi nii on avance bu ñu bàyyee ñu dem rek ñu àgg fi ñu jëm bu ñu galgalee nag leneen lu am ñoom ak askan bi la Sénégal ñu ñor bu lépp jaaree ci yoon ñu respecté yoon bu dara jaarute yoon yoon am foofu waaw waaw motaar yaa ngi yëngal mi ngi noonu c'est le président du peuple on l'ovationne on le salue ku nekk ak sa manière ak noo ko dundee président Ousmane Sonko on progresse ñoo ngi jëm tribunal bu Dakar ñoo ngi jëm tribunal bu Dakar di fàttali am na quelques échauffourées yu am ci diggante bi fale nga xamante ni moo di juste à l'entrée de Mermoz président ñëw waroon a romb et je rappelle que ay véhicules yu bokk ci convoi bi ñëw encastré wu ci président génn moo ni tant que véhicule yooyu génuñu ci son convoi parce que wóorul il ne bouge pas mais ngi noonu yéen a ngi seen ci ginnaaw des véhicules de la BIP des véhicules du GIGN des véhicules de la gendarmerie nationale ku ñu romb tu te mets en branle nga topp ñu mais ngi noonu nul ne peut contre la volonté divine seul l'agenda de Dieu compte Mamadou Dia jàngal nañu ko ci baatu alxuraan yi mu doon récité mi ngi noonu mooy suñu viatique li ñu war a def diñ koy def leneen li yàlla def moom la agenda wu yàlla kenn du xëccoog moom te yàlla créé Ousmane Sonko yàlla ko def ci xel xol yi leneen lu mën di am mooma on est là nañ fi nga xamante ni moo di fi tolloog ak Pierre Goudiaby Atepa on avance la place bienvenue à Dakar ñoo ngi dugg nañ ci corniche bi le convoi du président Ousmane Sonko mi ngi avancé destination comme ni ma ko waxee tout à l'heure le palais de la justice de Dakar ñoo ngi jëm palais bu justice bu Dakar président Ousmane Sonko en procès tey ak li nga xamante ne nit ñaa ngi noonu di génn Sonko kenn mun ci dara mbiru yàlla la agenda wu yàlla et on avance et on avance et on avance comme ni ngeen ko gisee ni ngeen ko gisee ci kanam li ko topp ci média li ko topp ci média ñu naataangoo yaa ngi noonu suñu naataangoo yaa ngi noonu ñu ngi noonu la presse nationale et internationale a aujourd'hui les yeux rivés sur ce qui se ici à Dakar ici sur cette corniche gis nga gars yaa ngi klaxonné président Sonko usagers de la route yi ñoo ngi klaxonné président Ousmane Sonko Je rappelle que le président Ousmane Sonko, qui répond aujourd'hui à la convocation de la justice dans le cadre du procès dit dit de Prodac, un procès qui devrait viser le détournement, qui devrait viser le détournement de 29 milliards, à l'occurrence du Prodac. Le président Ousmane Sonko est sorti aujourd'hui tout naturellement pour aller répondre à cette convocation. L'audience est prévue à partir de 10 heures. Président Sonko qui s'est déplacé en destination, qui mouvement d'ailleurs, comme la corniche de Dakar. pour aller répondre à la justice sénégalaise. Nonobstant, il faut signaler euh, dès sa sortie euh, de son quartier, il y a eu des, quelques échauffourées parce que des véhicules étrangers à son convoi se sont encastrés même dans quelques de ces véhicules, deux de ces véhicules, et y ont causé des dommages. Ce qui a provoqué la colère du président Ousmane Sonko qui est sorti pour leur demander de sortir de son convoi, sinon il n'allait pas bouger. Chose qui a été faite. Et là, actuellement, on a repris le trajet destination Palais de la Justice. Le président Ousmane Sonko, ovationné, soutenu par le peuple sénégalais, que ce soit les usagers de la route qui le saluent à coups de klaxon. Nous sommes sur la corniche ouest de Dakar, destination le Palais de la Justice de Dakar. Le président Ousmane Sonko est attendu en procès pour l'affaire concernant le Prodac, détournement de 29 milliards, dont le brillant Birahim Sek, président du Forum civil sénégalais, avait déjà écrit un livre de festin Prodac, mettant en le ministre Mambaïnian et d'autres entités de ce de Macky Sall. Présentement, nous sommes Radisson Blu les gens ovationnent le président Ousmane Sonko mi ngi noonu fu mu dem nit ñi nuyu ko yéen a ngi dégg klaxon yi yéen a ngi gis askan bi ñi ngi yëkkati loxo président Ousmane Sonko gis yaa ngi nit ñaa ngi klaxonné président Ousmane Sonko usager yaa ngi yëkkati seen loxo lii la yàlla def lii la yàlla def corniche bi waa jooju chaque semaine mu jaar fi du dégg ku ko klaxonné mi ngi noonu mi ngi noonu waa UCG ngi noonu ñu ngi klaxonné président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko la corniche ouest de Dakar le palais de la justice de Dakar le président Ousmane Sonko est attendu en procès procès de l'affaire du Prodac détournement de 29 milliards aujourd'hui ce gouvernement veut en pour nier l'existence de de rapport qui a mis en cause, qui a épinglé Mambaïnian. Vous voyez, nous sommes au siège de la Banque mondiale. Les gens sont en hauteur, ils sont au niveau de leur terrasse. Ils applaudissent, ils soutiennent le président Ousmane Sonko. Le peuple se libère. Le peuple est avec le président Ousmane Sonko. On progresse. Nous avons des gens qui klaxonnent, taximani. Nous avons le dispositif sécuritaire. kii malgré tout ñi ngi topp suñu ginnaaw dugg ci biir convoi bi même su fekkee ni ñi ngi carrément ci ginnaaw véhicule sécurité au moins ñoo ngi progressé jàmm rek lay am président Ousmane Sonko. moto yi ngeen di seen ñi ngi koy accompagner la presse nationale la presse internationale aujourd'hui Dakar est en mode fenêtre sur le monde entier nit ñi dinañ ko xool dinañ ko gis. président Ousmane Sonko nee naa leen bu ñu defaree lépp mu jaar ci yoon président Ousmane Sonko day topp yoon waaye yoon bu jaarul yoon rek yoon amatu fa donc on le respecte pas on ira au tribunal ñoo ngi jëm tribunal mi ngi noonu yéen a ngi seen nit ñi askan baa ngi génn ndeysaan ci fajar si di nuyu président Ousmane Sonko mi ngi noonu nit ñaa ngi klaxonné président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi noonu yéen a ngi koy seen yéen a ngi koy seen askan baa ngi génn borom moto yaa ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu nit ñaa ngi klaxonné nit ñaa ngi klaxonné lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal l'homme du peuple est là dispositif sécuritaire bi munu ci dara lii la yàlla dogal nit ñaa ngi klaxonné borom oto yaa ngi klaxonné ñun ñaa ngi yuuxu président Ousmane Sonko sur la corniche ouest de Dakar destination ñu ngi jëm tribunal étudiants yi waa université ñi ngi seen kaw balkon président ngi noonu président ngi noonu Sonko jëm tribunal bu Dakar nous sommes sur la corniche ouest di jaajëfal presse bi ñu topp la presse nationale internationale tey li fi xew yëpp dañ ko war a wone Nous sommes les témoins de l'actualité, les témoins de la marche du monde ñoo ngi nii et surtout les témoins de ces événements tristes pour le Sénégal. Le chef de l'opposition du Sénégal qu'on par tous les moyens à du jeu politique, du jeu électoral pour la présidentielle de 2024 te ñëpp xam nañ ni présidentielle moom la presse baa ngi noonu jàmbaar yaa ngi noonu nekk ci seen ay moto gaa yaa ngi noonu bége naa leen sama gaay ñi ngi noonu ay jàmbaar lañ si internetu Sénégal y ay jàmbaar tigi lañ ñi ngi noonu ci moto yi topp président Ousmane Sonko di ko filme di wane li fi xew nuroowuñ ak ñenn ñi waaye yàlla baax na comme ni ma koy waxee agenda wu yàlla rek mooy bu baax bi mi ngi noonu xale yaa ngi ko topp moto yaa ngi ci ñi ngi klaxonné presse baa ngi ko topp président Ousmane Sonko fii ci corniche ouest war a progresser jëm fi nga xamante ni moo di tribunal bu Dakar président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ñoo ngi dem ñoo ngi avancé ni ñaa ngi tàccu ñi ñëpp ay ouvrier lañ ñoo ngi liggéey waaye seen xel yëpp mi ngi ci président Ousmane Sonko lii la dogal yéen a ngi dégg déggeen ko mi ngoog mi ngoog ñaa ngi koy nuyu ak klaxon yi coup de klaxon yi mooy nuyoo bi président Ousmane Sonko l'homme du peuple biir teeru bi nit ñaa ngi yëkkati seen loxo lii daw na yaram lii daw na yaram automobiliste yaa ngi klaxonné di nuyu président Ousmane Sonko ku ko romb ziar ko moom la ñuy génnee loxo yi président Ousmane Sonko borom moto yi ñu ngi taala loxo yi président Ousmane Sonko. nous sommes là corniche ouest à hauteur du Terrou-Bi ak plage bi nga xamante ni moom mooy Majilang fii lañ tollu destination comme ni ma ko waxee tribunal bu Dakar war a seeti la justice sénégalaise qui a convoqué le président Ousmane Sonko waaye ni mu ko waxee ci discours am rek jarul ñu ciy jaaraat. justice bu debout mu tontu la wax ak yow xooleen ma lii di ñaan génn taxaw di tàllal loxo président Ousmane Sonko ñoo ngi nii ñoo ngi jëm fi nga xamante ne moom moo di ñoo ngi jëm fi nga xamante ni moom moo di tribunal bu Dakar. mi ngi noonu ñun ñaa ngi génn di nuyu président Ousmane Sonko déglu leen klaxon yi président Ousmane Sonko xool leen borom oto bi xool leen automobiliste yi ñi ngi klaxonné saan président Ousmane Sonko ngi noonu président ngi noonu ndeysaan patriote yaa ngi noonu président Ousmane Sonko xool leen ci kaw terrasse yi ci chantier yi ñi ngi koy président Ousmane Sonko ñu ngi nii c'est l'homme du peuple bu yàlla ne waaw ñëppay changé président Ousmane Sonko nekk ci agenda wu yàlla rek lu am yàlla la moom dong moom képp moom rek moom moo yor agenda bu baax bi lu ñu def duñ koy def leneen li yàlla war a def ñu bàyyi ko moom moo ko moom mu def ko te yàllaa ko def moom moo dugal président Ousmane Sonko ci xolu nit ñi nit ñaa ngi noonu yéen a ngi dégg gis ngeen askan bi génn tertu ko askan baa ngi noonu askan baa ngi noonu président ngi noonu askan baa ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel cet homme exceptionnel cet engouement autour de cet homme le président du peuple sénégalais celui que le peuple porte dans son cœur ñoo ngi tollu Soumbédioune ñoo ngi tollu Soumbédioune war a dugg ci li nga xamante ni moo di le tunnel de Soumbédioune ñoo ngi progressé yéen a ngi seen dispositif sécuritaire yi suñu mbokk mool yaa ngi noonu yëkkati loxo yi ca kaw président Ousmane Sonko mareyeur yaa ngi noonu jaaykatu jën yaa ngi noonu président Ousmane Sonko borom terrasse yi génn nañ nit ñaa ngi génn seen terrasse yi président Ousmane Sonko xool leen ci kaw xool leen ci pont bi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel exceptionnel le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ñoo ngi tollu ci tunnel bi mi ngi noonu président Ousmane Sonko génn nañ ci tunnel bi xool ni ñi ni ñu taxawee ci pont bi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel cet homme exceptionnel cet homme ñoo ngi avancé askan baa ngi noonu di yëkkati loxo nit ñaa ngi seen kaw terrasse yi di yëkkati loxo président Ousmane Sonko génn nañ tunnel bu Soumbédioune président Ousmane Sonko nit ñaa kaw terrasse yi lii la dogal. lii la yàlla dogal nit ki fu ñu mën a taxaw pour séentu ko l'homme du peuple sénégalais mi ngi noonu l'homme du peuple est là moo jëm tribunal bu Dakar askan bi génn ànd ak moom automobiliste yi di continuer di klaxonné ñii di liggéey di génn di klaxonné président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko le président du peuple le peuple sénégalais a choisi loolu moo tax ñi nga xamante ni ay saay-saay lañ bëgg ko tere bokk présidence présidentielle bu 2024 waaye yàlla xam nañ ni y a pas de match premier tour ñu tëral waa ji ren di jéggi dem suñu yoon président Ousmane Sonko le premier tour incha allah en 2024 ñoo ngi noonu ñu ngi noonu waa RFM génn nañ ñu seen kaw terrasse ñoom itam waa RFM itam génn nañ waaw du ma tudd ñeneen ñi waaye waa RFM génn nañ ñoom itam ñu seen kaw terrasse bi immeuble Elimane Ndour bu Youssou Ndour askan bi génn nañ ci immeuble bi di nuyu président Ousmane Sonko lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal kenn mënu ci dara du patron buy fay salaire du patron buy fay salaire du général buy joxe ordre président Ousmane Sonko ngi noonu askan bi teertu ko xale yaa ngi noonu mag ñaa ngi noonu yëkkati loxo yi ci kaw président Ousmane Sonko l'homme est exceptionnel l'homme est l'espoir de ce peuple L'homme a un pacte avec ce peuple sénégalais la présidence à partir de 2024 président Ousmane Sonko seen nit ñaa ngi seen kaw terrasse yi xoolal ma lii xoolal ma waa Rëbës xoolal ma waa Medina mi ngi noonu borom oto yaa ngi klaxonné di xëy di liggéey di sonné di dajeek président Ousmane Sonko di klaxonné di ko ziar di ko nuyu président Ousmane Sonko du ma ne ko mën na def waaye lii ah am na koo xamante ne chaque week mu jaar fi te du ko am xoolal ma ñi xoolal ma waa kër gi génn nañ taxaw ci biti sonko sonko yàlla na jàmm yàgg mbëggeel gi yàlla na leen ko yàlla fay kenn mënu ci moom dara loolu la ñuy wax xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu président Ousmane Sonko xool leen suñu yaay yi génn taxaw di nuyu président Ousmane Sonko mi ngi yor carte d'identité bi mi ngi yor carte électeur bi mi ngi noonu di ko wan ne yaa fi nekk 2024 dès le premier tour incha allah c'est le pacte du peuple sénégalais dès le premier tour ñu tëral waa ji ren di jéggi dem suñu yoon parce que on a un pacte à respecter avec le peuple sénégalais ce pays doit sortir de li nga xamante ni moo di l'esclavage occidental le président Ousmane Sonko ñi ngi toll fi nga xamante ne moom moo di la maison euh, Babacar Touré la maison de la presse Babacar Touré ñi ngi noonu ñoom itam génn nañ ci kaw terrasse bi waaw mi no noonu travailleur y ngi ci kaw génn ci terrasse bi prési prési ñu koy dégg à presque un kilomètre voire deux kilomètres même maximum de li nga xamante ni moom moo di le tribunal de Dakar la place du souvenir du président Abdoulaye Wade nit ñaa ngi génn mais ñu noonu vous voyez le dispositif sécuritaire qui est là important dispositif sécuritaire qui est là waaye agenda wu yàlla rek moo fi agenda wu yàlla rek moo fi ne président wax na ko nee na bu weesoo li nga xamante ne moom moo di yàlla bu weesoo yàlla peuple sénégalais la dénk askanu Sénégal la dénk boppam mi ngi noonu yéen a ngi xool xoolal ma gars yi ñu ngi ci kaw terrasse yi gars yaa ngi ci kaw terrasse yi gars yaa ngi ci kaw terrasse bi nit ñaa ngi ci kaw terrasse yi waaw Il n'y a pas un problème de son, on va, on va, on va arrêter de filmer un peu. Euh, pas arrêter de filmer, mais on va continuer à vous montrer les images, mais sans commentaire. Hein. Donc il n'y a pas un problème de son à partir de maintenant. mi ngi noonu euh, cher internaute ñoo ngi noonu euh, ñoo ngi dugg fi nga xamante ni moo di tribunal euh, donc comme niñ leen ko waxee rek lépp lu fi mënta am vous pouvez suivre ça à travers nos pages habituelles Jotna TV Ousseynou Ly Citizen ñi nga xamante ni moo di itam Bentaleb Sow Bentaleb Sow ak ñeneen ñëpp ñoo xamante ni Ousmane Diagne Mafia 4 4 ñoom ñëpp vous pouvez suivre à temps réel ce qui se passe et ce qui va se passer au niveau du tribunal de Dakar ñun itam on se met en alerte euh, saa yu dara xewee rek incha allah euh, dinañ leen ko dinañ leen ko indil donc agsi nañ tribunal il faut que ñu arrêter complètement le live ah pour euh, ñu xool na naka la ñu liggéeyee donc di leen naan patriote d'ici et d'ailleurs soyez prêts comme ni ko président bi waxee rek lim leen jaral rek nañu jaral li ko ëpp force à vous tous et incha allah ñu ñaanalante jàmm lante président Ousmane Sonko génn ci encore ak ndam comme ni koy yàlla ni mu ko koy mayee a chaque fois parce que itam agenda wu yàlla ci le président Ousmane Sonko wékku donc ñu ngi leen di jox di daje tout à l'heure et rester en alerte au niveau rester en alerte ci lépp lu mënti xew incha allah di ngeen ko jot.